invoquer l'article 74 du règlement intérieur, question préalable, parce que je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer si certaines euh, conditions ne sont pas réunies. Euh, la première condition, euh, c'est en tout cas le rapport de commissions. Les rapports des commissions, euh, on a reçu tout le rapport de la commission ce matin en venant en séance. alors que l'article 46 euh, du règlement intérieur est très clair. Il dit que les rapports et des commissions sont distribués aux députés au moins 24 heures avant la séance plénière. Je vous renvoie à l'article 46 Donc, puisque le rapport ne, nous a ce matin, nous, que demain, à la même heure, ce je pense que ça c'est très clair ku ko déggul ci français mun naa ko wax ci wolof mooy maanaam article 46 bu règlement intérieur nga xam ne moo nu ñu tënk ñun ñëpp assemblée nationale lu mu wax dafa leer nañ dafa ne rapport commission ya parce que démb nañu daje commission commission des lois rapport boobu nañ fi examiner léegi rapporteur bi moom la fi jot a lire dañ ko war a jox député yi au moins vingt quatre heures ñaar fukk ak ñeent waxtu balaa séance plénière bi 24 heures donc benn fan entier te tey rapport commission bi ñun ñëpp tey nañ ko jot distribuer nañu wax nag ñun tey nañ ñu ko distribuer huissier yi sànq nañ ñu ko fi jox moo tax ma ne euh, plénière bi mënuñu kaa tenir tey dañ ko war a dàq ba suba au minimum pour ñu mën a respecter article 46 réglement intérieur bi réglement intérieur bi nag. man binduma ko waa yeewi binduñu ko waa taxawu binduñu ko euh, euh, bennoo binduñu ko assemblée nationale bi yëpp ñoo ko bokk yaakaar naa ne suñu doyen yu fi nekk ñoom Seydou Diouf ak ñoom Cheikh Seck war nañu mën a confirmer lool donc euh, dama bëgg ñu respecter règlement intérieur parce que la ne lu tax ñuy reporter élection yi suñu argument yi ñu joxe ci exposé des motifs parce que dafa am ay jalgati yu ñu gis ay irrégularité ci processus électoral bi léegi pour mun ko defaraat moo tax ñoom ñuy laaj un report di prolonger euh, mandat président de la république mais comme que ñoom ñun dañu bëgg a defaraat nañu defar fii ba d'abord à l'interne qu'on balaye devant notre propre porte affaire yi jaar yoon loolu moo taxoon ma ne damay invoquer cet article 46 du règlement intérieur ba nga xam ne moom mooy wax ni balaa ñëw en tout cas mën a tëyrir séance plénière dañoo war a jot rapport et avis de des commissions parce que affaire bi ñoo ngi ko accéléré benn accéléré boo xam ne comprendre nañu ko parce que démb maa ngi koy wax démb nañ ñu woo conférence des président à 11h 11h ñu ñëw toog ñu ne euh, commission ñu jox euh, la parole président de la commission des lois euh, Moussa Diakhaté mu ne commission ba 15h nañ koy tenir dimanche. imaginez dimanche ñu woo la 11 ñu ne la commission ba 15h lañ koy tenir. donc loolu déjà gàtt na trop ñu tenir commission ba démb pratiquement ba ay 18 heures 19 heures jóge ci commission ba ñu ne séance plénière on va le tenir à 11 heures ça veut dire que ñu ko ñu ko def mais xamuñu règlement intérieur bi parce que waroon nañu xam ne ah entre la distribution du rapport et la séance plénière il doit y avoir 24 heures loolu président groupe parlementaire Abdou Mbow xam na ko Moussa Diakhaté war nga ko président assemblée nationale bi war nga ko xam donc loolu règlement intérieur bi rek la ñuy laaj ñu appliquer on n'est pas la pour di bloquer pour bloquer mais quand même on demande l'application stricte du règlement intérieur et sur ce point là gisuma benn interprétation lu ñu war a def mooy ñu suspendre séance bi ñu woote demain à la même heure bu ñu distribuer ce rapport, ce, ce rapport de la commission des lois. Merci. Je demande simplement l'application du règlement intérieur nañu appliquer règlement intérieur bi maa ngi koy ñaan groupe parlementaire Benno maa ngi koy ñaan waa groupe parlementaire Liberté Démocratie Changement maa ngi koy ñaan également le groupe parlementaire Yewwi et tout le monde inscrit je vous remercie. Merci. La parole est au président Moussa Diakhaté. <clears throat> Merci, Monsieur le Président. Rappelez aux collègues que la procédure d'urgence, s'il est demandé, est de droit. normal, mais on est en procédure d'urgence. Je demande, je rejette, je demande la poursuite des débats. Merci beaucoup, Président. Au-delà de la procédure d'urgence évoquée tout à l'heure par le Président de la Commission, dama bëggoon a wax suñu collègue ne euh, c'est pas sérieux ni sincère. Il est président de commission. La commission de la conférence des leaders s'est réunie et la majorité des présidents de commission ont le calendrier de travail de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. On demande de poursuivre. Merci, chers collègues. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont pour? on vote d'abord 54 voix. Quels sont ceux qui